ci guddi gu tedd kita jadi ya. yang yéen ci barab bi nuyoo itam ak siyaare di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko kon ginnaaw waxtu yu daf ñoo xaw a ni ko sëriñ Jiir Njaay li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane mel ne day jëm ci ñaari wàll genn wàll gi day jëm ci benn jullit ñi danañ ci wax waaye ñëwaale itam nag ci topp kilifa ak tënku ci ndigal mu mel ne ñaari mbir yoo xam ne dañoo ànd te mënuñoo teqali ko di loo xam ne itam nag waxtaane ko am na solo rawatina ci jamono ji ñu toll jamono ju ne war nañuy waxtaane solos bennoo jullit ñi ak luy tax mu mën a luy tax mu mën a war nañ di waxtaane itam topp kilifteef tënku ci ndigal loolu lu jar waxtaane la ci jamono bu ne waaye jamono ñu toll daf ci raw ndax day jamono boo xam ne képp ku xool bu baax situation bi nga xam ne jullit ñi ñu ngi koy dund jamono ji ci ak wuute ak teqalikoo ak delt ginnaaw ak ay jafe-jafe yoo xam ne yu bari ñu ngi koy dund te lépp daanaka la ko waral rek mooy seetu xàjjalikoo ak seetu ñàkk doon benn saa yoo xoolee rek danga ci teg bët mel na ne monde bi boo xoolee rek fenn fu nekk

crise boo xam ne moom ñu ngi ci moo xam wàllu góorgóorlu rek wàllu politique ak ñàkk ànd wàllu bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di tàmbalee nuyoo bi ak siyaar bi ci sunu sëriñ Cheikh Mamadou Mourtada ñu sëriñ Saliou ñu ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér mooy ñu yéene liggéeyu sëriñ bi def mu def di ndokkee ñëpp ci bis bu tedd bii di bisu cant di bisu xam ne sëriñ Tuubaa ci boromam lépp la ko may di tàmbalee ndokkeel woo am Cheikh Mouhamadou Mourtada di ñaan li mu yéene liggéey borom Tuubaa lépp yàlla may ko mu àggale ko ak sago te ànd ko ak moom di sof rek sunu kàddu ci kàddu sëriñ Abdul Ahad Bousso ci solo soo xam ne benn jullit ñi am na ko muy loo xam ne yàlla da cee soññi jullit ñi yonente bi sonn ci jullit ñi sëriñ Tuubaa démmal ko woote ci l'islam li mooy ngir defaree seen diggante mooy ku ci nekk la nga bokk ak sa morom nga defar ko bañ koo yàq wax na it teqale ko li muy jur jur mooy ak kéefër teqale ko ci diggante jur li muy jur mooy da leen delloo ñu nekk ay yéefar te jullit moom bu génne ci islam nekk yéefar l'islam dana dañ ko war a rey kon teqale ko kéefër lay jur loolu day wane kon ne bennoo dafa am solo waaye lislaam daf ñoo tegal ay ponk yoo xam ne nii ponk yooyu jubluwaay bi mooy wane bennoo jullit ñi ndax lislaam dafa am ay banqaas am ponk banqaas yi mooy yi nga xam ne mën nañ cee wuute te wàññi dara ci lislaam ponk yi nag mooy yi nga xam ne sañu cee wuute ku ci wuute kooku mu wuute ga danañ mën a génnee ci diini ponk yooyu nag ñu mën cee jël lu mel ni julli julli day symboliser bennoog julli julli ci mbooloo l'islam day bëgg nit ku nekk boo ko mënee julli bu jot nga nga defe ko ci mbooloo moo tax yonente bi mi wet julli ak sa julli nga jullee ko ci mbooloo loolu julli mbooloo dana rawante julli kenn juróom-ñaar fukki tuyaaba maanaam bu ma wéetoon julli wala ma dem ci jumaa yi julli ci mbooloo sama julli mi dana wuuteeg sama julli kii juróom-ñaar fukki tuyaaba loolu l'islam kon day bëgg ñu bennoo li ñuy def ñu bennoo di ko def waaye jublu ci bennoo boobu rek waaye bennoo ci jumaa ji dañ koy def ngir mën a xamante ndax bu ñu tabaxee jumaa yu toll nii ci quartier bi waa quartier bi am nañu fi dëkk ñoo xam ne xamante wuñu am nañu fi dëkk ñu néew doole am nañu fi dëkk ñu am doole jàppalante wuñ soppante wuñ li li ko waral mooy dañu gisante dañu daje moo tax lislaam wax ni julli yi juróom mooy buñ doon daje juróomi yoon ci jumaa ji waa quartier bi génn daje ci jumaa ji juróomi yoon par xàmmee ne am bu xàmmeentee am waxtaan dana ñëw bu waxtaan ñëwee ku ci nekk mën naa xam fan ngay jaar mën a jàppale sa morom kon loolu mooy waral jullit mbooloo bennoo boobu ak xamante boobu ak mën a jàppalante loolu moo tax lislaam sopp ñuy dem ci mbooloo dafa julli boo jëlee julli juróom loolu mooy jubluwaay bi waaye yow ci julli juróom semaine bu nekk am na bisu àjjuma julli àjjuma julli àjjuma yi dañuy bëgg waa parti yëpp bu julli gi jotee lu waay doon def nga bàyyi ci doon jaay nga def biti lu waay jàppoon nga bako te dem ci jumaa ja bu ñu demee ci jumaa ja imaam bi semaine bi am na yu xew yoo xam ne nii lislaam am na ci ay jàngat yuñ ci war a jàngat ngir julli ñëpp xam ngir ku nekk xam nga teg sa tànk ci xutba boobu imaam war naa jàngat semaine bi xew-xew yi am te yitteel jullit ñi ak taxawaay yi jullit ñi war a am mu leeral ngir ñoo xam ne ñoo bokk lu ñuy dund ñoo bokk nuñ koy fayee lislaam it indi nañu solution ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci jamono yi loolu ne ñëpp war a dem ngir mën a taataan table yooyu nga xam ne nii day leeral julli ñi fi seen tànk waaye yemul ci julli àjjuma naka loolu it julli it julli it moo gën a yàgg bu julli it jotee la jumaa ji di gën a fees na mbooloo di gën a bari julli it day am xutba day am discours boo xam ne discours bi dañ cee war a fàttali jullit ñi seen digganteeg seen borom seen digganteeg seen morom seen digganteeg seen bopp ngir ku ci nekk xam ni nga war a jàppe sa morom julli ni nga ko war a defee sa bopp kon julli julli ponk la boo xam ne ponk lislaam day buñ ko defee ni ñu ko war a defee dëgg-dëgg dana tax bennoo am ci diggante julli waaye bu ku nekk beroo sa bopp di julli ah, mën ngaa dëkk ci quartier bi nga dendal sa bu ngeen xamante du ngeen du ngeen demlante te fekk ne mooy jumaa ji kenn bu te dem yéen ñaar du ngeen waxtaan du ngeen mën a jàppalante ci dara loolu nag day jël ak jàppale ko nga jël benn ponk bi mooy lu mel ne koor koor moom it day wane benn jullit ndax koor bu jotee jullit ñëpp ñooy bokk benn programme ci lan waxtu wi ñuy jàpp koor muy fajar ñëpp ay bokkandoo jullit ñiy woor ñëpp dañuy bokk bàyyee loo lekk bàyyi la waxtu wu demee ba timis jot it ñëpp dañuy maase dogandoo kon day wane ne ñun noonu ñu bokkee benn programme ci weeru lëmm di ko doxee noonu noonu lañ war a mën a bokkee programme yi am jafe-jafe yi jullit ñi am yëpp moromu taxaw ci ba jafe-jafe yooyu mën a kon koor ni ñu bennoo ci weeru koor ci di waxtu ñi def waxtu ñi bàyyi bu jugee ci koor yi waruñoo bàyyi noonu waaye suñu programme yi ñu dund yëpp dañ ko war a dundee noonu koor loolu ñu jàngal bennoo lay jàngale nga ci azaka zakat asaka mooy ki am alal dañ naan ko da jël ci sa alal tuuti at mu jot jox ko ki amul ki am ngay jox ki amul lan koy nag loolu farata la. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم وكي جلدي وكتابي من taalibe yéen ñëpp ku ci ne ci turam a santam di leen ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla suñu borom moo nangul ñu ko defal ñu yoon ku sant yàlla di nuyu suñu kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke ibn Sëriñ Salim di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér yàlla kàttanal ko ba mu yeggalee ay naalam ànd ko ak taalibe yi amiin ci barke Sëriñ Touba kon ñu dugg ci thème bi euh, rek bala ñoo ñàkk ci ay waxtu ndax xaw naa mi ngi xaw a guddi tuuti ñu bëgg a waxtaan ci ñaari poñ dolli ko ci lii euh, sëñ Abdoulaye wax ak sëñ Mame Cheikh mooy euh, benn jullit ñi liñ ciy dolli mooy. ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nuñ ko jàppe ba yàlla dogal ñu am ci ndam yiñ ci am ñoom suñu waxee loolu wax taxawaayu Cheikh Ahmad Bamba ci jullit ñi bennoo ak tënku ci ndigal ak ni ko mag ñi jëmmale bi ci njëkk mooy xam nga lislaam benn xeet la benn xeet la boo xam ne benn yonent moo leen boole benn téere moo leen boole benn pas-pas moo leen boole ci cosaan li ñu tuddee wuute si lislaam lépp dara du ci cosaan lépp ay banqaas la waaye cosaan yi ñun ñëpp ko bokk loolu day firi ne kon lislaam benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar niñ koy waxee ci baati wolof yàlla sunu borom dafa wax ne yéen jullit ñi da di dimbalante ci seen biir di dimbalante ci ragal yàlla di dimbalante ci mbaax waaye bu leen dimbalante mukk ci ay bàkkaar ak di indi ay noonoo ci seen diggante loolu li muy firi mooy kon yéen yéen a bokk lépp di leen yëkkateendoo di tegandoo mu wax ne bu leen di xëccoo ak di xiiroo ak a ŋaayoo ndax bu ngeen ko dee def dootu leen saf borom maanaam seen caf ko day dem kenn dootu leen xam dégg nga bi ma fi nekk waaye fond bi du fi nekkati maanaam contenu bi dootu dootu fi nekk yàlla waxaat ne na jàpp ci buumu yàlla gi yéen ñëpp te bu leen tàqalikoo loolu lépp ci alxuraanul karim ay junj la yoo xam ne li muy firi mooy jullit ñi benn lañ kon nañu jàpp ne ñoom ñoom bokk lépp doomu aadama nag sunu boroom moo ko bind ngir muy wuti moroomam fu mu fu mu ne ndax nit moom moo baaxoowul dund ci wéetaay boo dee jàng ci wàllu sociologie doomu aadama ba muy tàmbali di wéet booba bareegul nit ñi kese ñoo daan dund kenn ku nekk di dund ak boppam waaye bi ragalee ci seen kóolute yaram ak seen seen dund bi gën a jàpp ni ku ku xëy rek di wut moroomam ndax bu ko gisee lam daan am benn ñaar la ci am ñaareel bi day wéttaliku te wéttaliku bi da koy jural sécurité ci ci ci ci dundam loolu moo tax nit yàlla moo ko mooñee muy dund ci mbooloo moo tax yàlla ko kon ngay dund ci mbooloo moo xam ne benn xeet ngeen te yéen bokk pas-pas bokk ngeen jëm loolu ay jàppandal la yoo xam ne suma boroom moo ñu ko defal mu doon ay kéemtaan yu rëy a rëy ndax nit ki mënut a ñàkk dund ci mbooloo euh, yàlla it euh, dafa wax ne yéen nit ñi man maa leen bind def leen ñii ay góor ñii ay jigéen